ginnaaw bi orange dee jaay doole ñun ñii dañoo dem rencontrer orange c'est important loolu ñu leeral ko ñun coalition citoyenne dañoo dem rencontrer le directeur général de orange ñun ñëpp ña nga woon ca réunion ba équipe bam yëpp ñëw toog ñu ne ko sénégalais yi nañ ci prix yi ngeen di appliquer yéen orange transfert bi cher na yéen a ngi ñuy jaay ay euh, ay ay forfait yoo xam ni du forfait parce que suñu la forfait benn jour jour journée bi yëpp da war a woote am France mais Sénégal lan boo wootee ñetti waxtu ñun la jeexam demal jëndaat te dañ laa jaay journée for forfait bi journée lañ ko tuddee wala ñu jaay la une semaine boo wootee ñaari fan ñun la jeex na wala ñu jaay la weer boo wootee une semaine ñun la jeex na loolu Sénégal rek laam amul France amul benn réew waa léegi la même chose ci sa connexion waa léegi ñu ne ko lii cher na ñu wan ñu arrogance bu metti keroog ca réunion ba am déet mhm. lañ leen fa wax yëpp c'est impossible. mu ni loolu du ko def. ñu ne ko transfert d'argent bi ngay def tamit dafa cher tarif yi ngay appliqué dafa ëpp. mu ni loolu mënu ko wàññi. waa kon sénégalais bu ngeen xëyee xëyee rek orange te kenn waxu ko wàññil mooy wu jëm yéen koy bëgg a waa léegi sénégalais yi xamul leen di poussé. mooy sénégalais yi bu leen kenn tax a tuxu rey leen ko ba mu dee. parce que ba ba ngeen ko nee wàññil dafa bañ. kon du ngeen am wujjam woo xam dafa ñëw wàññil leen mu bëgg a wàññi lu gën a yées wujj wi pour bëgg a rey wujj yu mu dee mu dellu ca priyam nekkoon kooku kenn du ko fi nangoo ñun suñu rôle la coalition citoyenne le peuple c'est d'éclairer le peuple mooy leeral askan wi jafe-jafe yi nga xam moom lay dund kon même bu wàññee ba wàcc moins de un pour cent bu benn sénégalais tuxu nañu rase ci wujjam wi koy bëgg rey parce que bañ ko nee wàññi nangu la wàññi wàññi donc loolu c'était une précision à faire